Monsieur le Président, chers collègues, messieurs les ministres, euh, en 2016, on avait réformé fondamentalement notre Constitution et je faisais partie de ceux qui ont prôné et voté oui parce que dañu yaakaaroon ni gannaaw assise nationale bi te président de la république bokkoon ak alliance pour la république ak kilifa yu nekkoon Benno Bokk Yaakaar ni dañuy jëb lu gën a rafet lu ñu waxtaanee comme da ngeen di wax dialogue lu ñu waxtaanee ci dialogue bi nga xam ne assise nationale la woon ñu signé ay charte dañuy jël ñu ci gën a baax pour réew mi pour askan wi te waxi constitution bu boobaa dina féete suñu ginnaaw pour ay ati ati at que dinañ teg réew mi ci ay charte yoo xam ne werante dina fi néew ndax bu fekkee ne dañuy wax grande démocratie la ñu bu fekkee dañuy xalaatal suñu askan pour ëllëg dinañu jéem a toppandoo réew yoo xam ne constitution bi pour ñu laal ko il faut ay fukki at wala ñaar fukki at wala juróom fukki at waaye ci diiru lu yées fukki at constitution bi soppi nañ ko ay yooni yooni yoon ba du ñuy wax fii tailleur constitutionnel déet dëbb daaxe constitutionnel moo fi am taf yëngal constitution moo fi am du tailleur tailleur dañ koy respecté parce que dafa am liggéeyam di ko def ak correctement la meilleure preuve que dañu waroon waxtaanee constitution bi ci ci anam yu gën a yaatu ko nañ ko waxtaanee ñun assemblée nationale ñoo ci waroon njëkkee ndax assemblée bii nga xam ne ñu ngi ko voté xam nañ ci yan anam la génnee réew mi mu yëngu woon na ci ba munoon na ci dugg ci ay fitna ci lan ci code électoral boo xam ne ak constitution boo xam ne bu ngeen ko xoolee liste yi gën a mag sax ñu ñuy wax parti yu gën a mag <laughs> liste yooyu dañu ci am yu ñu ci daanee lu bëri bu fekkente ni code bi ñu teg ak loi bu ak constitution bu ñu teg mun na faagaagal ñiy wax ni grand parti la ñu bu ñu fàtte ni que Benno Bokk Yaakaar listam ci lo législative liste suppléants yi dañ ko faagaagal liste yeew yi dañ ko faagaagal loolu jaroon nañ ko waxtaanee waroon nañ waxtaanee intercoalition yi ñuy wax ni nga xam ne gis ngeen résultat bi fii ak yeneen ak yeneen ak yeneen loolu je crois que débat démocratique la waroon de noonu boo xam ne ñun député yi ñoo waroon jël suñu responsabilité en tant que député opposition particulièrement et pouvoir jël suñu initiative def suñuy proposition gannaaw ba ñu càmbaree loi yi ba mu war mais gis nañu que li soxal ñu teewoon ci dialogue nangul nañ leen ñu dem dialogue accepté nañu seeni raison man damay respecter point de vue ku nekk parce que démocratie lañ nekk mais ñu lu soxaloon ñooñee rek lañ moo nekk ci révision bi pas lu soxal askan wi pas lu naroon yëngal réew mi ci élection yi ñu wees kon donc lan moo doon jëriñu révision bi en procédure d'urgence monsieur le ministre c'est heureux que vous ayez retiré le projet de loi visant la dissolution de l'Assemblée nationale C'est aussi une des inspirations qui montre, un des projets que l'esprit qui sous-tend les révisions n'est pas un esprit constructif, je ne dirais même pas consolidant, constructif. Quand on veut soustraire, quand on veut donner à un président qui ne rend jamais compte à l'Assemblée nationale, qui définit la politique de la nation, quand on veut lui donner l'autorisation et la capacité d'exercer un pouvoir de vie et de mort sur une Assemblée nationale, alors même qu'il ne, qu'il ne rend pas compte à cette Assemblée nationale. Et que la pauvre Assemblée nationale n'a qu'une motion de censure qu'elle ne peut exercer qu'une fois par session. À l'encontre d'un Premier ministre qui, qui ne définit pas la politique de la nation, on voit bien qu'on est dans une asymétrie totale. C'est heureux qu'on ait renoncé à ce projet funeste. Pour terminer sur les parrainages, mel ni xamuñu luy parenage parenage ba tey jii gis nañu ñun ñëpp que dañu koy jënd ci réew mi bu fekkee nag suñu démocratie dañ ko bëgg a teg ci labaj ci corruption ci guerre ndax xam nañu ñun ñëpp ñun ñëpp ñu fi nekk ak ñu nekk ci biti gis nañu ay opération jënd parrainage pire gis nañu ay opération jour de vote ñuy jënd ay vote bu fekkee dañu gëm démocratie bu ñu wax dañu bëgg a teg suñu réew ci lu dëgër dañu war a mën a xeex loolu police bi ak sa euh, ministère de la justice dañ ci war a xeex. merci cher collègue la la suivante. Merci beaucoup, Monsieur le Président. monsieur le ministre de la justice ñu ngi lay nuyu ak sa collaborateurs yëpp di nuyu suñu euh, collègues députés yi fi nekk yëpp monsieur le ministre ñu lay remercier encore une fois parce que keroog nag ñun députés yi presque à l'unanimité def nañ plaidé nañ à notre à la faveur de notre collègue Birame Souleye euh, te gis nañu jéego yi nga xam ne moom ngeen ci def ñu ngi leen di remercier bu baax di fàttali député yi nag balaa ñoo waxati ñuy jël suñu làmmeñ di ko xoolaat juróom-ñaari yoon parce que wax nag dafa garaaw bu xasee ba génn doo ko mun a maîtriser di wax nag ne parce que li may wax rek réew moom waxtaan mooy indi jàmm te waxtaan mooy jur lépp dialogue nag comme li may wax rek ñaari dialogue consécutif moom mënta am benn dialogue bi def nañ ko ñi nga xam ne xam nañ luy état et l' état c'est sérieux ñëwoon nañ toog waxtaan ba consensus yu fort yi génn fa ñu ni ko tey assemblée nationale ñu war ko voté kon dinañ ko voté pour permettre ñu nga xam ne tey dañoo nekkoon si ay jafe-jafe ñu mun a bokkaat si li nga xam ne mooy daal président Macky Sall écarté wu kenn suñu dëkk dafa am ay loi ay règlement lu ñu bind mu leer nañ ku def lii lii moo la si fekk ku def lii nag ba loolu fekk la si wax dëgg yàlla da ngay da ngay gëm yàlla parce que nag damay bokk far force da ngay wax ak lala la teree bokk président Macky Sall def boo terewul bokk fenn kenn teewut benn bokk kenn ci élection ku sàggan nag wax dëgg yàlla ba sa tubéy wala sa làmmiñ tere laa bokk nga bugg ñëw teg ko ci kaw Macky Sall président Macky Sall ne ko dafa force da ngay bokk da wax lu la neex parce que on est dans un état de droit di wax nag ne parrainage bi sant yàlla doxoon nañ ne nañ ko waxtaanee waat toogaat nañ waxtaanee ko gën nañ koo ñoŋal waa nag su électorat yokkee parrainage ñu wàññi ko kay c'est tout à fait normal mu yegg nombre boobu dañ ne ku am soit nga am treize députés wala nga am cent vingt maire wala nga am nombre de parrainage bi nga xam ne mooy parrainage citoyen waaye ku ko amul nag mënoo doon président nga dem toog mënoo am parrainage ba pare bugg ne nga jiite suñu réew mi mënut nekk parce que suñ fi toogoon tey quarante candidats déjà déclarés te li wóor te wóor si kanam la jëm bu ñu ko continuer loolu bu ñu xëyoon soo ba ngoon di voter te loolu c'est une catastrophe dans loolu mënut nekk ñu ñu ngi leen di féliciter li nga xam ne moom ngeen def ku mun a bo def fa mun a am parrainage bokk ku munta am parrainage toog comme li nga xam ne moom mooy euh, li may wax léegi li nga xam ne complot bi ñu fiy wax damay wax euh, monsieur le ministre waxoon naa ko keroog commission dama la koy waxaat ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kaso bii toj ay yëfu jaambur ñi nga xam ne ñoo ne ci kaso bii doon taal terre bi ñi nga xam ne ñoo ne ci kaso bii doon attaquer des installations électriques ñooñu duñu ay politique ay terroriste lañ terroriste nag da koy àtte par des textes terroristes ñoom nga leen di àttee parce que doo mënuñoo nit di yàqal nit di yàqal ay doomu aadama nga ne ñooñu nañ leen jël def leen traité leen comme ay politique ñoom duñu ay politique leneen moo leen yëkkati woon monsieur le ministre nag dañ lay yóbbantuwaat si président ne ko gàcce ngaalaama parce que nag jaama pexem yàlla ak dogalam ñun suñu amoon lu ñu neex day bokk te nag sénégalais ku ne xam ne ne ba léegi nag ay xol mu ngi si biir xolam ñu ngi si biir xoli sénégalais yi waaye nag mu am grandeur bëgg Sénégal parce que nag dañ ne Sénégal liir la ñii xëcc fii ñii di xëcc fii moom moo ko bëgg nag mu bàyyee leen ko ndax moo jur liir ba kon moom moo bëgg Sénégal kon ñu ngi koy wax gàcce ngaalaama kontaan nañu si li mu def sigil na Sénégal sigil Afrique devant le monde entier kon di wax rek ne monsieur le ministre di la waxaat di la yóbbantiwaat encore une fois di wax ne élection yii ñu jëm ku munta bokk amul négocier te beneen dialogue nag amut ñun rek représenté wuñ peuple bi ñun rek les députés du ñooy représenté peuple bi c'est vrai que ñun ñooy représenté bu mais ñun nekkuñu peuple bi loolu laa bëggoon wax peuple bi nag ñoo ñu fal ñu ñëw fii waaye dafa am ay limites am na fu muy tool peuple bi la laaj ñi nga xam ne ñoo waxtaan nag ba juboo société civile am fi ñeneen ak ñeneen ak fi kon nag def leen attention si ñi nga xam ne ñi may wax ñu soi-disant professeur saa yu ñëwee di leen dugal si yoo xam ne naka su dul noonu seen njàng bënnagut bés bu seen njàng bënnee nag ñu mun leen conseil ngeen di def jërëjëf monsieur le ministre merci beaucoup. la parole à notre collègue Oulimata Sidibé as euh, Khadijatou Thiam la suivante